li seytaane jug ngir fëq xoli jaam yi seytaane jug dox diggante nit ki ak siraatal mustaqim seytaane jug ngir dox diggante ak boromam seytaane jug ngir bëgg a dox diggante nit ak nitam mu mel ne sëriñ Saliou bi nga xam te ne tey jii dañ koy defal màggal gi ak di ko defal ak cant mu mel ne loolu la ko sunu borom baaxee woon ñu jël ndaw ñëpp jox ko ko ngir mu génn ci ñoom ak loolu génn ci ñoom seytaane ba seytaane mënta dugg ci ñoom ba dara mën leen yàqal ba fuñ mën di nekk doon fa royuwaay te ku ne xam na ne firnde la ci doxalin wii ñu doxale ci kanamu sunu kilifa gi di muy Serigne Sidil Muxtaar mii toog ab yar mënul weesu nga xam kii kilifa la mat na la kilifa sëkk ngeen daje ba ci ngeen boo fi yëkkati lay seenu ñàkk jox ko ngir jëmmi Serigne Touba kon ab yar mënul weesu loolu waral bu nekk su juddoo la gën ci moom mooy ñu jàngal ko bu ñu ko jàngalee yar ko ndax képp koo xamante ni bii ñi ngi lay topp wala mbooloo ñu topp si ginnaaw na la ñu baax jaar lañ fa mu comme mën di ci kaw suuf nag jàngal nan la yar nan la teg nañ ci yoon bu baax tërbiye nan la tërbiye nag day aajo taqoo ndax bu ñu wax tërbiye tërbiye day aajo taqoo ana lan mooy taqoo mooy ki ngay tërbiye saa su nekk day gis ci yow loo xamante ne bii moo gisu ko woon ci yow démb ci lu baax saa su nekk mu jóg ngir jëm ci lu baax waaye saa su nekk taalibe yi di gën di moom di gën di jëm ci lu baax saa su nekk loolu mooy ak tarbiya da tax taxaw nit ki di ko jàngal alxuraan ba ab xolam mën a set wala nga di ko liggéeyloo ngir ab xolam toj wala nga di ko jaamu yàlla ba ab mën a set te ku ne xam na ni nit ki balaa mën a jaamu yàlla dëgg ab xolam day set. ndax nit mënta jaamu yàlla ab xolam sëtu ndax ku sëtu mënoo jaamu yàlla te loolu jaamu yàlla yàlla du ko nangu kon nit ki balaa mën a jaamu yàlla ab xolam day set tarbiya nag lay jëriñ ci doomu aadama mooy jàngal la yar la teg la ci aw yoon ba foo dem mën faa nekk setal sab xol ba ak rëy du nekk ci yow ndax rëy bokk na ci li nga xamante ne bii mooy li yàq yàqal doomu aadama ci kaw suuf ndax nit léeg-léeg danañ ko teg foo xamante ne bii ak réyam mën na koo yóbbee mu war mu def loo xamante ne bi day jàpp ni su ko defee ak tuutam la te loolu ak réy yóbbee te ñàkk a jaar ci daara moo ko waral kon nit ki war naa bàyyi xel su ko yàlla joxe ak njabootam mu mun ngir jëmm yàlla nga xam ne njaboot ko yàllaa ko jox mu dem yóbbu leen ca daara ja ñu jàngal ko alquran jàngal ko xam-xam wëlbatiku la tari tërbiya ko ndax jàngum alquran kese doyut njàngum xam-xam doyut waaye nag boo su boobaa damay daal di matali lépp kon nit ki bu juddoo di gone ngay woy di xam ne jaaral leen ci barab bi yow it da ngaa war a jël seen njaboot jaaral leen ci barab boobu te mooy lan yóbbu leen ñu jàngi nga muñ métti leen koy def ndax képp ku xalaat ne sa doom buñ ko yóbbul dara dina tuum rànke dina xiif dina mar dina sol daal la mu dagg dina sol yéeri néew des na ko duma te doo ca man dara dina feebar ci doomee soo xalaatee loolu doo joxe sa boo xalaatee ne yàlla mi la ko jox moo la ëpp yërmande yow da nga ko jox joxagul ne jëm yàlla kon nit ku nekk war naa bàyyi xel ne ak tarbiya mooy doomu aadama nit ki mën naa bañ am xam-xam nit ki mën naa bañ a alxuraan waaye ab yaram moo koy yóbbee ba kenn du lu xamal dara bëri ñu ñuy tudd ci jamonoy Sëriñ Tuubaa moom ko la ñu alxuraan waaye tomb bi Serigne Touba moo taxoon kenn koo xam te ne moo gën a alxuraan wala bari nga xam-xam saa bu réunion bu bu bu la yoon yow wat la ngir tomb bi yooyu kon ñu jàpp ne mokkal alxuraan rek doyut jàng xam-xam doyut waaye da ngay boole ànd ak di ko tërbiya wala bëgg boole ak gëstu ndax dañu faral di wax ne ndaw lu wër téeméeri réew ak mag mu jàng téeméeri téere bu mu dajee seen waxtaan dana mën a nag. ndax gone ga man ma dana xam lu nekk waaye gone gi dina jàng lu nekk kon lu mel ne xam-xam lu am solo la ci ndaw ndax mooy làmp bi lay nital ci kaw suuf ba doo mën a am pakk-pakk te bariwaane jamono jii ñu toll seytaane li muy fekk doomu aadama mooy bis boo demee ba toll ci war a jàng bis boo demee ba toll ci war a jàng bu la dugalee ci ji diir bu gàtt ñu génne la fa dem dugal ci métier. métier moomu nag ñu lay dugal day dem ba yóbbale ak ñàkk teggin doo xam ne looy wax war a waxal say wéjur doo xam ne nooy war a waxal say kilifa doo xam ne nooy war a wax say morom say morom nga gis ak jotaay boo xam ne da nga fay dégg coow ñu koy wax yàlla waaye da gis ñoo xam ne bi loolu soxalu leen ndax la moo ko waral mooy jàngalu leen te yaruñu leen jotaay bu ñu dem rek ñoo fay gën a fës jotaay ñu dem ñoo fay gën a waraakaan ak coow. ana lan moo ko waral mooy teguñu leen ci yoonu siraatal mustaqim kon la seetaane bëggoon ci ñoom ñooñu am na kon doomu aadama bu nekk doom li muy neex neex neex bu ëllëgee lan la koy laaj nga mën a tontu leer ëpp doole te jëmm du nekk ab sàmm nga ñii di cant seen saa yu tey jii ba seeni waajur di leen joxe ñu dem xel kom ku ne xam na ni xel kom metti na waaye dañoo muñ loolee dem jël seenu njaboot jébbal ko seen saaliw te xam ne bis buñ fa jógee fuñ mën dem ci kaw suuf danañ fa mën a nekk te jàpp naa ni mooy lii ndax fuñ mën di nekk ci kaw suuf yaakaar naa ni danañ fa mën a nekk ndax yaru nañ ci am nañ tege xam nañ ni ñu waxee te loolu rek mooy doomu aadama yaru xam nooy waxee xam nooy jëflanteeg sa borom ba pare xam nooy jëflanteeg say morom léeg-léeg nit dina wax ci ay kàddoom nga jàppale ko xam ne la waaye déedéet ay wala juróom ñoo ko yow teguñu ko ci yow siraatal kon lor nañ ko. ki war nay tarbiya doomam donte ci biir kër mu nekk donte nangu koo bàyyi mu ci daara ja waaye moom ci jëm moom war nay dox yoo xam te ne bi bu ko waajuram yooyu gisee danañ ci bu bu ko doom yooyu gisee danañ mën a ko ci moom ndax alxuraan bi wax ne na ngeen fegal seen bopp sawara te fegal seen njaboot am na lan moo koy waral mooy yow sa wàllu bopp yow kilifa gi da ngay jéem a xam yàlla ba noppi te ba nga xamee yàlla nga jëfee dana yàlla digal ba pare seen njaboot soo defee sa njaboot mën a jaar ci kon loolu yi mooy tax nit ki ak njabootam bu fi bàyyee ko ñu di ko ñaanal di ko toppatoo ana la moo loolu tey jii maa ngi ñuy toog ci jotaay bi di fàttaliku sama wala fi bàyyee ko ki dem ndax su ma jàngoon dinaa xalaat loolu ndax su ma yaruwoon dinaa xalaat loolu ndax su ma teguloon aw yoonu sax xalaat loolu doo ko xalaat ñu baree baree baree bare bare seeni waajur fi bare ko du xam ne leen ko ñaanal ana lan moo ko waral mooy yóbbuwul leen ngir ñu jàngi yóbbuwul leen ngir ñu tërbiyee leen waaye yóbbuwul leen rek ngir ñu tegal ci yoonu siraatal mustaqiim te seytaane mi ngi lëmbe ci kaw ndaw ñi te ku ne xam na ni islam ndaw la gën a soxla islam ndaw la gën a soxla ci kaw suuf seytaane nag day jug dugg ci biir ndaw ñi jaaxal si seen xol jaaxal seen xel ba suñ defee bakkaar duñ ko tuub sax ngir bakkaar yu bari saa bu leen def loolu bon buñ ko jugee bu leen bu ngeen tuubee yàlla jéggal leen ko ngeen ne astaxfirullah yam te daal dem tëdd nelaw muy bàkkaar bu leen xaar mu mel ne kon adduna si la fa ne woon fa amoon taqa waasal ayaatu dunia fa innal jahima hiya al-ma'wa nit ki saa su jëlee addinaam teg ko ci awal ko wóoree lenn du ak mu sawar te nit ku nekk war naa ragalal boppam sawar ndax amu ci kenn koo xam te ne ci ñun ñii fi toog ñu ne nga kon nit ki nag lan moo koy may àjjana mooy la la yàlla digal nga def ko. waaye lan la tere nga jéem a bàyyi sa kem kattan ak loolu lan moo la ko mën a may mooy wéyu jur woo xam ne dafa jaar foofu wëlbati ko jaarale foofu kon tarbiya mooy waral doomu aadama fu mu nekk ñu ràññee ko fa ci ay teggin su waxee ñu ne kii ñu xam ne kii jaar dara waaye su doxee ñu xam ne kii jaar na ci dara te doomu aadama bu nekk war na la ci yow saa boo wéetee xam ne kat lu àddina yàgg-yàgg ñaan nga yàlla wan ginnaaw sa njaboot ndax amul kenn ko ñaan yàlla jiital sa njaboot ndax boo leen uh, jiitalee kan moo fi des ak yow kan moo lay ñaanal boo faatoo waaye boo leen jiitoo te yar leen su boobaa dana la ñaanal te ñaan boobu nga la fekk moom te loolu ne bu ëllëgee yow man xiyaam ñi nga xam te ne suñu borom da leen def ñu nekk barsaq saa bu ñu faatoo dañuy puukarewante kenn ku nekk ci sa doom ah la lay puukarewoo mooy kenn ku nekk bu sa doom defee lu baax dañ leen indi ko ne ko sa doom kat moo sa doom diw moo jëf jëf ju baax ji mu puukaree ko ci kaw moroom yi waaye bu amee kenn koo xam ne doom dafa def ab safaan dañ koy indi ne ko sa doom kat sa doom diw moo def safaan bi su ko defee mu am gàcce boo xam ne bi du ko mën a wax ilaa yóbbu diini kon war nañuy bàyyi suñu wéyjur xel war nañuy bàyyi bu baax suñu wéyjur xel te bañ a jàpp ne àll bii moo ñu sànq àll sànq ñun ñoo sànq suñu bopp ku yemale Argentine ak Bambey Sile yooyu la romoon Dakar du la def dara dëkk la boo xam ne fi ñëw ngir jaamu yàlla ana lan mooy jaamu yàlla gi mooy li war sa diggante da ko war a def ba koo rek sa ngor doy na sëkk du la nen tubaab bi ay la yàlla sàkk ñu yor bu weex yàlla sàkk ñu yor der bu ñuul te gënuñu te ñu ngi lu nekk gën ci ñoom yaakaar dina am suñu diggante bu ëllëgee ñoom amuñu ko kon ñoo leen gën kon ñoom ñoo leen gën kon waxin waxante ba ku ci gis xam ne ñii ñu ñax la léeg-léeg moo ko waral mooy doxin moom gis nit ku weex respecté nit ku ñuul ana lan moo ko moom doxale lu mat a bàyyi xel di nga xuloo ko tubaab toog dangaa résiste te booba fekk na xeeb nga te mooy man ma dara te baat boobu la ñu baree bari saa boo ko waxee rek xeer nga sa bopp ndax mooy lan mooy yow jàppewoo sa bopp nit moom nga jàpp nit waaye yow jàppewoo sa bopp nit te loolu nit ki war na ko bàyyi xel kon doomu aadama bu nekk li war ci digganteem ak njabootam te mooy lu baax lépp loo jëf ñu ci teg seen bët lépp loo wax na doon ab yar ak i teggin ñu mën tee jaar ñun nag li ñuy sunu boroom nattoo mooy li ñu nekk ci bi muy loo xamante ne bii fitna la ci ñëw ndax amu ci kenn ci ñëw koo xamante ne sax njaboot wóor na la ko yar yar ba mu kii bu dul dañ ko yóbbu ci daara ja ku nekk ci ñun te kenn ku ci nekk ñaanoo yàlla sa njaboot di xiif waaye ki nga xamante ne ñaanul ak njabootam di xiif kon kooku war naa fexe nu mu yare ak njabootam bu bu ëllëgee bu fi jógee mu mën a yar na ko wut ndax afro dafa wax ne fa xalafi min bari xalfun ñi nga xam ne ay xalifa lañ ak ñi dul ay ak ñi dul ay xalifa te ñooy xalifu ni mooy ñi seen i waajur nekkoon ci lu baax jóge fa ñoom ñu nekkaat ci leneen lu bokkul woon loolee kon nit ku nekk war ngaa bàyyi ci xel ci seen bu fekkente ne seen i waajur mel nañ mel nañ war a mel ndax léegi tamit waajur yi danañ am melokaan woo xam ne bi yow mi dem sax da nga rus a doon moom waaye loolu mbirum suñu borom la waaye teewul nag cër ba war a dox sa diggante moom na ko ko war a wax jox moom sëkk ndax wax na ne sax waajur wulul ab jullit saa soo ko amee mu yónni la sàngara da ngaa war a dem jëndal ko waaye bu la ko noonu sa waroo ko def kon waajur am àq ci digganteelu doomu waaye nag bu fekkente ne yarul la jàngal la ana lan ngay yoon ab dof bu taxawaat rek doom boo ko juree yar ko formé nit nga jàngal xam-xam waaye boo ko jurul yaroo ko nag ku taxawaat dong lay doon du xàmmee ay waajuram du xàmmee ay moroom doo ko mu ko sàkk sa xam te loo ko wax mu ne ak ah, sama yónnee ko ci loolu. day laaj nit ki nam mu ab mun ngir jëm yàlla jël ak moom sànni ni ci daara ja coono ba nga fa daj matt ya nga def teen ya yi nga sol sa woon ko xam ne ci lii nga ba man lii nga mën ndax te képp ku ko sunu borom def ci sa bënn waxuma la nga mokkal alxuraan rek waaye nga mën a tiim suunu alxuraan jàng ko ba mu jeex ca gagoo rumbewoo kooku dara yu jooju ci say diggante say wajur jar naa tax kenn ku nekk jël sa doom yóbbu jële ci daara ji alxuraan ji ñu doon jàng ndax fii bi ñu toogee ñu bare bare ñu ngi soññee ci nan dem ca kanam jàng alxuraan waaye bu néew jógee fee ñëw te ñu baree bare ci suba ba léegi ñu ngi toog jël ay dukki alxuraan di jàng noppul ñu ci ñoo ne law seeni wajur def ci ñoom xam nañ ko bu baax dafa mën a nekk ba mu jëfandikoo te bëriwaane nag ñoo xamante ni bii ñu ngi ci biir mbootaay wala kon ñi ngi ci biir njaboot gi wala kon ñi ngi ci biir mbooloo bi ñu seeni wayjur defaroon waaye ñu ñëw bu fii yàq li la seen wayjur defaroon te dara war na dudul am am boo xam ne la ngay am fii amu ko woon Sénégal nga jàpp ne yegg si na te seeni wayjur defar nañ leen lañ war a def ci ñoom wàccoo nañ ñoom ma xeex ñoo ne defar nañ leen nangam ak nangam ak su boobaa ñoom ñooy seen diggante jox leen seen ñu di leen teg ci yoon di leen teg ci yoonu siraatal mustaqima saa su nekk ñu di leen teg ci yoon di leen ñaan di leen ñax ma jàpp ne dégg-dégg boobee nit ku nekk war nga koo téye foo mën di dem yóbbaale ko mu sa yóbbal ndax nit ki boo ko joxee sa bopp ne ko àddina ak alaxira te li Sëriñ ci wax ne nit ki diggante sëriñ ak taalibe mi ngi mel ne néew bu ñu tëral di ko sang kii sangay xool fa ko jublu mu juble waaye néew di jub mukk ne ko fii nga ma juble kon diggante nit ak kilifa noonu la war a demee mu mel ne kon nit ku nekk wasila wam yaakaar ca war doon royukaay ñii tey taxawal bis bi Serigne lu def royukaay Serigne Saliou def royukaay te Serigne Saliou dafa am ab xalifa amut ay xalifa ab xalifa la am te mooy Serigne Cheikh te ku ne xam na ne l'islam bi jamono ji liñ toll ci Sénégal amul ku ko ci gën a man ci kaw li yàlla bëgg ak li mu seetaane ki nam ma jël ay milliards da def ci lislaam te mooy leen ay juma daaray alxuraan luy dundal ay dongo loolu ku ko ca mën jamono toll amul ci kaw suuf kuy wax rek te yàlla rek tax kon ab xalifa la kooku la bàyyam nekkoon ca la nekk ca bi bàyyam di dund it la bàyyam doon man ci mbay ak lépp bu Serigne Sall mi am 1 milliard daana am 500 millions ci aw dundam la mos aw ñàqam la mos a dundee kon nit mooy sa kilifa te nga war a te nga war a xool moom moo war a doon sa royuwaay ci kaw suuf amoo keneen koo war a gestu wala nga di ko xool lu dul ni ki nga xamante ni bi mooy sa royuwaay ca mat na ab royuwaay ndax roy yi dafa yóbbut ci seen tubaab dafa wax ne saa soo jógee ngir tànn kilifa bu doy na nga xool ba ku la doy na nga dem ba tànn ba xam ba xool ba seetal ko ba xam ne kii moom la doy nga jox ko sa bopp su boobaa lépp loo nekkoon ginnaaw moom li mu tànnal la jox la ko na nga téye loolu mu mel ne kon njabootu Serigne Saliou bii def tey jii ci noonu yi lan doon dox mu mel ne Serigne Saliou yamul woon ci di leen yar bàyyi leen toog waaye dana ñëw fekk si di leen xool di fekk na ma njaareem ay yoonu yoon doom yi daan jóge xel koom bi ñëw ay mbaar daan jóge njaareem di dem xel koom bi yóbbu dund ak ceeb yi ñu fa daan indi kon nit ki. doomu aadama yi bu ñu la joxee ak njaboot nga def ci ñoom la war doon seen ndey doon seen baay doon seen maam doon seen lépp mooy Serigne Saliou te képp koo xamante ne bii jox la ko doon daanaka lu ci ëpp fàtte nañ ko li fii ak wàccoo ba dem sooy waaye Serigne Saliou mbubb moom la dàll moom la saar moom la lépp moom la ca amut lenn loo xam ne dina ko dee alali Serigne Touba da ko def te da ko def te liggéey boobu. boo jéggul boo jéggul man mii dégg naa ko bu baax a baax waaye damay ñaan kenn ku nekk rek jox ko ak lii seen sori kenn ku nekk rek foofu nekk dafa toog na ñu koy fekk fa bu jox ko ak lii seen sori loolu koy sàkk rek loolu koy ñaan ci boo leen ko fi nekk ak lii seen sori bisimilah ñëw ak lii seen sori loolu koy sàkk ñëpp rek ngir jënd seen sori loolu la ci boppam bu weesu def la Sëriñ Tuubaa ak ndénkaane Sëriñ Tuubaa te ku ne xam na ne ndénkaane Sëriñ Tuubaa weesu woon ragal yàlla ak jaamu yàlla xum ne adaadati mata taxasan ada foog daal di yaa tub far fu nuural samila yaa sax rajaaj ihmal wa waxli sa niya wa faadix tamaamal wala umniya ba fa mu jeexee li Sëriñ Tuubaa di wax mooy nit ku nekk li ëpp ci yow wala li gën ci yow mooy ak ragal yàlla ak wóolu yàlla te gëm ko te doy loolu tey jëfe ndigal tey bàyyi tere ndax pas-pas mooy jëfe ndigal yàlla yi waaye di bàyyi tere te nit ku nekk su fekkente ne pas-pasam dafa yàqu du mën a jëf lu baax pas-pasam su néewee du mën a jëf lu baax kon pas-pas mooy li am solo sëriñ bi ci la yaroon ak njabootam ba ñi nga xamante ne nekkuñu woon ca daara ja ci pas la mën ko ndax amee normal mooy ci jamono ci suñu jamono yi ñu toll ak génération bi laa wax ci sëriñ lu bare bare wala waaye sëriñ saa ñu bare bare mën na laa wax moom loolu li sëriñ Tuubaa ci boppam nam woon mu defar ndaw ji bala fi jóge loolu waral mu bàyyi ko fi Mourtada mooy daal mooy defar ndaw ñi di leen yar di ci di leen wan moom boppam def ko ci ndaw ñi kon day mel ni nit ku nekk da xool ca ka nga xamante ne bi mooy sa wasila ngay roy ci moom di dox ci tànk yooyu koy wax mooy ko war a dem